gu bees gi sumb na opération pré hivernale yi kii di ministre de l'assainissement di xamle ne ñoom nag jël nañu ay matuwaay ngir fexe ba mbënn mi du lor kenn ci atum ren bi les travaux waaw liggéey bi ñu ngi ko daal di xayma ci lu toll rek euh, ñeenti téeméer euh, ak ñaar fukk ak juróom ci million suñu koppar jot nañ ko sax euh, tàmbali waaye tamit loole dana daj gox yi ci Ndakaaru moom liggéey bi daanaka sax tàmbali na ci lu ci mel ni rek waa ONAS ci téeméeri kilomètre ak juróom-ñeent ci ay kano yoo xam ne war nañ koo ŋàcc te loolee sax daanaka ci téeméer boo jël lekk daanaka ñu ngi juróom fukk ak juróom ci liggéey bi te dana jeex fii ak njeexitalu weerum ay matuwaay ngir mën a def ay intervention yu gaaw te xarañ. waaw te nañ ab dispositif bu nga xamee daal dañuy bañ rek ay rëcc rëcc am wala ñàkk tollole dañoo bëgg rek ñuy mottalante waaye tamit di tolloo ngir rek mën a jëriñ askan wi ndax it euh, bu fekkee ne wàllum nawet moom euh, mën na teel lool waaye tamit dañuy xaar daal ne euh, nawet boo xam ne taw bi dana bari lool. ci li jëm ci wàllum journée nationale nettoyage bi nga xam ne kii di njiitu réew mi dina ci samedi bi ministre bi di xamle ne liñ ci bëgg mooy fexe ba mu sax il s'agit pas seulement de. waaw doyul rek ñu daal di euh, teg ab bis bu nga xam ne bisub nettoyage rek lañ koy daal di jagleel rek mu daal di jeex déedéet dana am processus boo nga xam ne dañ koy daal di euh, rango waaye tamit fexe boobu askan wi def ci liggéey bi waaye tamit euh, bokk ci li nga xam ne ñu bañ a taqal ndax it bañ a taqal espace bi nga xam ne jot nañ ko nettoyé. ab nawet boo xam ne du am mbënn wala sax su amee mbënn mi du am dayoo loolee mooy mëbëtu njiit yu bees yi mëbët boobee nag mën na nekk suñu sukkandikoo ci ministre bi. donte sax ñu ngi xarandi ab nawet bu bëri ndax lool